alhamdulilah rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika sayyidil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa asxaabihi wa taabiciin lahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiin ammaa ba'd mbokki jullit yi ñu xam ne maandute dafa bokk ci valeur yi nga xam ne mooy tabax tabaxal doom aadama ak ndoom aadamaam mooy tax mu mën a nekk nit bokk ci fondamentaux yi nga xam ne lislaam da koo indi ngir bëgg a tabax dundu nit fii ci kaw suuf muy kenn ku nekk say àq sa àqi njaboot sa aqi société moo xam lu aju ci wàllu social la wala lu aju ci politique la wala xeet wu mën a doon ku nekk am na aq ju la yàlla jox joo xam ne ci wàllu maandute loola yaa ko moom doy na rek ñu xam ne maandute lu yàlla màggal la nu xam ne yonent yi ak téere yi yàlla dafa yónni yonent yi wàcce téere yi ngir ñu taxawal ak maandute ci kaw suuf moo tax sunu boroom tabaraka wa taala mu ne laqad arsalna rusulana yónni naa samay yonent bil bayinaat nee ma yónni leen jox ay lay yu wér wàcce ñoom ay aay dëgër wa anzalna maahum alkitaab nu wàcce ay téere ànd ñoom wal misaan ak balance nattukaay lu tax mu ne li yaquuma annaasu bil qisti ngir nit ñi man a maandu kon nee na yónni sama yonent boole leen ak ay téere ñu indaale ko jële ko fi man ngir leen rek ngir na balance nattukaay am bu boo xam ne mooy tax doomu aadama yi mën a maandu maandu te ci lislaam dafa doon loo xam ne lu nosewu la lu itteel sunu borom tabaraka wa taala itteel ab yonentam moo tax mu teg ko tegiin woo xam ne tëral ko tëraliin woo xam ne mooy tax këneew doole amul benn pexe amul daraja amul alal amul luñ koy ragale loola mooy tax kookee ñi mën koo jox ak xam ki nga xam ne dañ koo tooñ ci kaw doole ak bari man-man kooku ñu jox ko ak xam kon maandute mooy boroom àq ji na jot ak xam ca na mu gën a gaawe ci yoon ya gën a yomb noonu la ko lislaam tere loolu nag ci jullit dafa bokkut ci yi nga xam ne naafila la waaye ci pas-pasu jullit ci la bokk mu gëm ne moom dafa war a maandu ci boppam maandu ci digganteem ak askanam digganteem ak njabootam digganteem ak société bi digganteem ak adduna bi sax moo tax borom bi tabaraka wa taala daf noo digal nu maandu doonte kii nga xam ne moom la ñuy atte ci mbiram sax moo xam dañuy atte ci moom ci anamuk atte gu mën a doon doonte suñ digganteeg moom sax ak noonoo daf fee dox doonte daf noo bañ nu bañ ko sax bu dëgg jotee ci mbiram nan ko wax nan maandu ci mbiram moo tax suñu borom tabaraka wa taala mu ne yaa amanu kunu qawaamina bil qist yéen ñi gëm yàlla na ngeen taxaw ci kaw maandute shuhadaa lillah lépp lu ngeen di seede yàlla tax walaw ala anfusikum doonte li ngay seede boo noppee mbir ma ci sa kaw lay dal donte yow ci sa bopp la ñuy sanctionné li ngay seede na nga ko seede ndax te yàlla tax awil walidayni wal aqrabin wala li ngay seede bu sottee sanction ba ci sa kaw ay waajur lay dal wala ci sa kaw ay mbokk yu la jege ak moo xam anamuk jege googee gum mën a doon sunu borom tabaraka wa taala mu waxaat ko mu ne yaa ayuha alladina amanu kunu qawaamina lillahi shuhadaa bil qist nee na taxaw ngir yàlla te maandu wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala alla taadilu bañ aw nit bu tax mukk ngeen ñàkk maandu waaye idilu nee na leen huwa aqrabu li taqwa loolu moo ànd ak ragal yàlla maandu leen ndax loolu moo ragal kon mëne suta ragal yàlla te maandu waaye ku maandu it day wane ne kooka ragal yàlla mu ngi ci xolam borom bi tabaraka wa taala daf noo digal nu maandu ba ci sunuy wax li ngay wax nga xam ne wax jii ci kaw maandu te la teg moo tax mu ne wa ida qultum faadilu su ngeen wax na ngeen maandu li ngay wax na nekk maandu kese luy tooñ doomu aadama du ci nekk lu koy lor du ca nekk lu koy gaañ du ca nekk te fekk teguwul ci kaw dëgg te fekk teguwul moo tax wa ida qultum faadilu kaana daa qurba doonte sax ki ngay wax ci moom dafa doon ku la jege bu mu tax mukk nga nës nësal wala nga waxal ko loo xam ne lu koy arrangé la wala lu baax ci moom la fekk keneen a nga cay loru koo xam ne ku la sori la borom bi tabaraka wa taala digle na maandu ci atte moo xam dangay ngay diggante ñaari nit dañu laa wóolu ñëw ne la man di sama digganteeg sama soxna nanga ma fi dox wala sama digganteeg ka ma doon liggéeyandool wala sama digganteek sama xarit ba nanga ma fi dox attenu borom bi tabaraka wa taala dafa digal kay atte mu maandu wala da ngay atte ci tribunaux yi nga xam ne moom la nit di teg di ca attewu soo ci atte na nga maandu bépp atte buy jóge ci yow na doon boo xam ne seet dëgg rek la moo ko lal moo tax borom bi tabaraka wa taala ne inna allaha yamurukum seen borom tabaraka wa taala muy yàlla mi ngi leen di digal an tu'addu al amanati ila ahliha lépp loo xam ne wóolu nañ leen ca ngeen joxe ko nam ware te bañ caa wor mu teg ca ne wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl su ngeen dee atte diggante aw nit wala diggante nit ak nit na ngeen ko def ci kaw ak maandute borom bi tabaraka wa taala digal ba ci nga xam ne day defar ay diggante ba ci kiy defar ay diggante ab diggante ñagas na nga ñëw di ko defar am na ñoo xam ne seenu defar dañ koy teg ci kaw par parloo yàlla nee na déedéet du noonu moo tax mu ne su fekkee ne dafa am kuréel yoo xam ne na daa dox seen diggante ba ñaawoo dox fa ba àgg ca ay xeex ak yu mel noonu nee na na ngeen dox seen diggante atte leen su benn ba jéggee dayoo nag lànk nee na boobee féttéerlu na ngeen ko yar su fekkee def ngeen ko nag bañ nangoo dellu ñoom ñaar ñépp dellu gannaaw ba atte des ca wala yéwénal seen diggante nee na fa aslixu baynahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin suñ demee ba delsi nag ba yéwénal diggante bi moo ci des ngay réparer su boobaa nee na na ngeen jëfandikoo maandu bul ne mukk kët kii moo fetteerlu woon kii moom naka jekk ci dane woon jàmm la bëgg kon ngay àtte fexe ba wax loo xam ne day baax ca kenn ka te du baax ca ka ca des waaye maandu mooy feeñ bu boobaa ginnaaw ñoom ñëpp nangu nañoo ñëw ci sulh mu yéwénoo su boobaa yéwénal diggante bi ci ak maandu kële fetteerlu woon bu fekkee gëstu nga ba gis ne dañ koo tooñ sax na ko woon ne ko yow yaa tooñ su fekkee kenn ku ne daa am tuuti ci dëgg la ca des doon caaxaan kenn ku ne nga dellool ko dëggam nga ne ko fii kat yow yaa fi nekk ci dëgg yaa fa nekk ci waaye loolu lépp da ngeen koy a avancé jéem a defar digg digg ba bañ àndaat nekk benn diggante ba bañ àndaat nekk benn loolu mooy doon ak maandute kon maandute ci lislaam wala maandute bu mu mën a doon sax noonu la war a tëddee ndax maandute suñu borom tabaraka wa taala daf ko wàcce mu ànd ak yonente ya ak téere ya moo tax bépp diine boo xam ne nit a koy dund te fekk diine baa nga ci cosaanam dara soppikuwu ca faw maandute da cay nekk bokk na ci li la koy firndeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy yónni saxaaba yi ka fa nekkoon ab nasaraan la woon waaye ginnaaw dafa jàppoon ci diine ji yàlla wàcce woon kon kooko ci maadu te la nekkoon moo tax yàlla ne leen dem leen fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad buura foofa boo xam ne du tooñ kenn fa moom dem leen làqu ji foofa kon maandute xamul kii laa bëgg wala moo ma bëgg kii laa bañ wala kii moo ma bañ waaye maandute rek la xam xamul kii moo ma jege ci aw askan wala moo ma jege ci deret kële moo ma sori ci askan kële moo a jege ci deret xamut loolu xamul kii boroom daraja la ci kanam dëgg ñu ne boroom daraja la nañ ko suulal dëgg gi wala ñu ne kii boroom alal la déedéet xamut loolu xàmmeewul sax ab jullit ak kudul jullit naam xàmmeewul jullit ak kudul jullit lépp lu mën a dox diggante ay doom aadama ba atte sës ca su boobaa dëgg rek moo fa sës waaye amut leneen lu ñuy seet naa ndax kii jullit la wala du jullit wala kii imaam la kii du imaam kii ku ma jege ci askan la kii ku ma sori la kii ci sama kuréel la bokk kii bokkul ci sama kuréel déedéet lislaam xamut loolu lim xam daal mooy dëgg ga fan la ñu naa ah, nañ ko yóbbu foofa ku nekk ci caaxaan ak koo mën a doon ñene la ci caaxaan nga nekk bu dee da ngaa aajowoo yar ñu yar la bokk na ci li muy firndeel loolu usaamatu bnu zeyd radiallahu taala anhu usaama mooy doomi zeyd mi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko fonkoon mu yaroo ci këram ndax ba doomoo li ñu tuddee adoptation doomoo ba muy dagan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko doomoo woon jàppe ko ne mooy doomam ba alxuraan wàcc ne loolu daganut ndax dafa nekkoon ab jaam ci biir kër gi ñu goreel ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàppe ko doom loola jiitu na lislaam bañ di ko tudde Zayd ibn Muhammad bi alquran wàccee tere loolu nag ñi tàkkantal ko ci baayam bàyyi Zayd ibn Muhammad kooka nag ñi may ko soxna ba Usaama ibn Zayd juddoo ca Usaama moomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko bëggoon ba ñi di ko wax Usaama xibbu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam soppeeb yonente bi lañ ko xamee woon ba tax na yu bari su ma jaaxal nit mu bëgg a àgg ci yonente bi xaw koo rus wala yu mel noonu sax ci Usaama lañ koy jaare moom mu àggee ko ko benn bés jenn jigéen ju bokk ci bani maxzuum muy ci giiri Quraysh yi gën a tedd ci Quraysh ci la bokk ndaw soosu dafa sàcc ñu jàpp ko indil ko yonente bi sallallahu alayhi wa ñu ne kii de dafa sàcc mu seet ñu gis ne moom dafa sàcc askanu màkk wépp Quraysh ñu tiit ñu ne jigéen joo xam ne ci askan wi gën tedd ci askan wi la bokk ñu xam kër ndeyam xam kër baayam xam askan wi ñu nar a dag loxoom ñu ne dem leen ci Usaama ibnu Zayd ñu ñëw ci Usaama mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa wax ko ko def intervention wone ne dafa bëggoon ñu jéggal ko donte dañuy fay alal donte dañuy def nangam wax a wax daal ay waxam ba àggal bi mu noppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mer fi kanamam mer moo xam ne mu tor la ne ko ndax da ngay tiinu ci atte boo xam ne atte bi yàlla la yëmul ci loolu mu jóg alayhi salaatu wasalaam dem ci jàkka ji ñu woote ndax su lu masa bees masaan am rek alayhi salaatu wasalaam day ñëw ci jàkka ji naka mu ñëw ànd ak mer yéeg ca minbar ba daldi xutba ab xutba bu gàtt bokk na ca lam mu ne innama ahlaka alladina qablakum ña leen jiitu day la leen alagoon moo di ida saraqa fihim alsharifu tarakuuhu su fekkee ne boroom daraja wala boroom askan akub juddu daa def njaaxum ci ñoom ñu bàyyi ko wa ida faraqa fihim aldaifu aqaamu alayhi alxadd ku néew doole néew kàttan néew alal néew daraja su sàccee ñu ñëw ne nañ teg ci kawam atteb yàlla ba mu ne wa aymullah mu ne waat naa ci yàlla ne law anna fatimata bint muhammad su fekkoon ne fatima sama doom ji man yi ci saraqat su fekkoon ne moo sàcc la xataatu yaddaha kon ma dagg loxoom mu jeex tàkk ndax bu dee ab judd la ñuy wax wala tiraanga doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak xadija bint xuwaylidin foofa la tiraanga akub juddu foofa la mën a yem mu yëgal leen bu sàccoon ma dagg loxoom kon loolu mooy maandute ci lislaam te loolu waxu ko waxi kese waaye jëf la su ko defoon jëf lay àndal mbokki jullit yi lislaam noonu muy digalee maandu noonu lay tere tooñ ndax tooñ mooy safaan ba lislaam xeex na ko bépp xeetu xeexiin woo xam ne man na ko nit ki dañ koy tere mu tooñ boppam koy tere mu tooñ boroomam di ko tere mu tooñ ay moroomam loolu lépp dafa xaraam rawatina nag tooñ goo xam ne daa jóge ci boroom doole ñëw ci ku néew doole walla mu jóge ci boroom alal ñëw ci ku ñàkk saa boo xamee ne kiñ tooñ ku néew doole la ki ñu tooñ lu mu gën a néew doole rek tooñ gi day ëpp bàkkaar ki ñu tooñ lu mu gën a néew doole ki ko tooñ bàkkaaram day gën a bari sunu borom tabaraka wa taala mi ngi koy wax ci xadis qudsi mu ne yaa ibaadi mu ne yéen sama jaam ñi inni xaramtu zulma ala nafsi nee tooñ dama koo xaraamal ci sama bopp tooñ dama ko xaraamal ci sama bopp ma rabbuka bi zallaamin lil abid sunu borom du tooñ wa jaaltuhu baynakum muharrama nee na xaraamal naa ko itam ci seen diggante fala tazaalamu kon bu leen tooñante ndax tooñ ay lëndam lay andi ëllëg comme lim saxe ci xadis xadisu Muaas ibni Jabal bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee Yaman digal ko mu woot nit ñi ci wax ko na muy wootee ne ko suñ duggee ci lislaam na nga leen digal ñu julli digal leen ñu woor te seeni alal nga jël ca asaka ca ña ñàkk nga jël ko ca delloo ko ña am nga jële ko ci ñoom delloo ko ci ña ñàkk ne ko nag wattandiku la tànn la gën a baax ci seeni alal nag man ba nga tànn la digg doomu ba àggal mu dénk ko mu ne ko wattandikul ñaanu koo xam ne danga koo tooñ ki tooñ jóge ci sa kaw tàbbi ci kawam kooku wattandikul ak ñaanam ndax su ñaanee nee na digganteem ak boroomam amul kiiraay bu ñaanee rek bal ba tàkk na moo tax mu waxaat ko ci beneen xadis ne ñett ngi ñoo xam ne seenum ñaan yàlla du ko delloo maanaam luñ ñaan yàlla da koy nangu ka ci jëkk nee na as yuftir ki nga xam ne dafa woor ba ba muy dog ki woor ba ba muy dog koor ngi ñëw noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu àggale na ci jàmm eh, nu woor ko ak jàmm mu nangul na ko waaye ñu xam ne ki woor waxtu wi muy bëgg a dog foofu mooy waxtu ñaan wi dëgg nag boo wara boo naanee ba noppi dog li ngay def kooku zikr la dafa am tudd yàlla goñ la sant nga di ko tudd yàlla foofa comme ni ngay jàppee ba noppi tudd yàlla comme ni ngay defee geneen jaamu yàlla baagal ñu la boo defee li baagal li ngay def waaye ñaan ga dëgg nag lu jiitu ngay dog la kon rafet na ci nit ki bu fekkee mi ngi xëyoon di liggéey amul woon ak jot mi ngi doon yëngu di def dara ba ay waxtu yi néew des ci dog nag mu toog benn place nag jublu xibla jàpp ba sell xool la ëpp solo ci loo xam ne dana ko jariñ di ko jariñ njabootam di ko jariñ xeetu lislaam ko jariñ am réewam mu ñaan ñaan yooya moo tax mu ne ci woor xatta yuftir ba keroog muy dog kon su dogee day mel ne bërëbu ñaan ba dëgg dëgg dëgg moom fañ ko gën a soppe foofa jeex na su dogee ba noppi nag mu tudd yàlla def dikkër yi nga xam ne moo rot ñaareel ba nee na wal imaamul aadil ilimaan joo xam ne dafa maandu foofu ilimaan mën na ko tudd ilimaani jàkka mën naa tudd njiit njiit lu mën a doon nag njiitul association ba njiitul mbooloo ma njiitul mouvement ba njiitul gouvernement ba njiitul réew ma ñooñu ñëpp al imaam al aadil day dugg ci ñoom kasam jiite toll noona ba noppi boole ko ak maandu nee ak ñaanam yàlla du ko delloo ñetteel ba te moo tax ñu indi xadis bi nee na wa daawatul mazlum ki nga xam ne tooñ dafa dal ci kawam jóge ci keneen koo xam ne moo ko tey ngir dooleem rek ak alalam ak darajaam moo tax mu tooñ ko kooku tàllal ay loxoom ñaan yàlla ci ko tooñ borom bi nee na kooku ak ñaanam diisu ko delloo moo ne yarfauha allahu fawqa alxamaam wa yaftaxu laha abwaab alsama nee na kooku ak ñaanam bu génnee rek sunu borom tabaraka wa taala ubbil na ko bunti asamaan yépp su ko defee sunu borom tabaraka wa taala ne waa izzati waat naa ci sama kattan ak sama tiraanga moom borom bi tabaraka wa taala mooy wax loolu ne ko la ansurannaka walaw baada xiin danaa la dimbali danaa la jàppale doonte sax du léegi léegi nii waaye danaa la jàppale ngir sa ñaan googu kon ñaan ga danañ ko nangu ba noppi te li ngay wax du daal di am fi saasi waaye nga xam ne rek nga am yàqin ci yow ni kii tooñ na la ñaan yàlla nga ko ñaan yàlla ga day ñëw moo tax léegi-léeg nga gis tooñkat boo xam ne day wéy rek nit ñi ñaan ñi naan ko dara waaye da ngay dem ba ca mujj ga rek nga gis ne ndekete ñaan yépp ñëw na ñaan yépp ñëw na bu fekkee alal la woon lépp day xëy yàqu bu fekkee doolee la woon day xëy yàqu bu dee daraja la woon ak teraanga day xëy torox ci kanam nit ñi kon ñaani bindeef yi nga xam ne dañu leen a tooñ ci li gën a mat a wattandiku ci la bokk te kat ki néew doole amut menn pexe li nga ko teg amu ci menn pexe fu mu mën a demit amul njariñ kooku lam dese mooy tàllal ay loxoom wéet ak boromam ñaan yàlla la te loolu ba aliyaasu billahi su ko defee mënta ñàkk faaw nga gis ko mbokki jullit yi bokk na ci njariñi maandute moo di mooy indi sécurité cim réew ak dal ak jàmm moo koy indi cim réew xolu doom aadama yi moo ciy def ak dal seeni xel itam dal ndax danañ yëg ne ñoom am nañ kóolute ci seeni bakkan ci seeni alal seeni kër seeni njaboot yooyu yëpp am nañ ci dal su kenn ku ne amee dal googu yëg ko ci sa xol loolu mooy tax réew mépp jékki-jékki dal ànd akuk dal ànd ak jàmm moo tax fu nit nekk fu nekk da ngaa war di xëy di liggéey ci luy indi ak dal te bañ a liggéey ci loo xam ne dafay indi njaxas wala muy indi am réer moo xam ne su amee musiba mooy am kon bokk na ci ay njariñam moo dina tooñkat bi njariñi maandute tooñkat bi saa bu ko wóoree ne moom mii bu tooñee doole gi mu yor ak alal ji ak kattan gi mu yor du ko jariñ dara ci kanam attekat ba su boobaa kooku day jàjju bëggul toroxal boppam bëggul ñàkk alalam bëggul ñàkk dara jaam kon kooku day def nocc lay def jub lu wax ja bari bari day jub duutu tooñ kenn waaye bokk na ci lori tooñ itam moo di fépp fu tasaaroo tiitaange mooy nekk ci xoli doomu aadama yi li ñuy wax fawda anarchie mooy tasaaroo ca askan wa dara lu jub wala lu tegu ci yoon day daal di jafe day dem ba istiqraar mu stabilité bi nga xam ne moom lañ doon séentu ci réew day dem ba dootuñu ko gis ndax kat boroom kàttan gi boroom alal ji boroom daraje ji boroom wàccuwaay bi su fekkee dem na ba xam ne kàttanam googoog alalam joojoog darajaam jooju mooy tax lépp lu ñu tudde maandu teeg justice kooku du mën a agsi ci kawam kooku mooy tax lu ko neex def lu ko neex lay def ci bakkani nit ñi lu ko neex lay def ci seeni alal lu ko neex lay wax ci seeni der wala mu di ko ca def parce que xam na ne am na lu koy aar loo xam ne mu nga tudd kàttan wala mu nga tudd alal wala mu nga tudd daraja kon kooku ci musiba yi nga xam ne ñàkk maandu da koy indi ci la bokk ki néew doole nag te nekk ci société boo xam ne tooñ la ñuy def te buñ ko tooñee amut fu jëm amut fu ko jàmbate fu ko jàmbate boroom alal wala boroom daraja dana taxaw effacé lam doon dox su fekkee loolu moo tasaaroo ci biiru askan lu muy jiw mooy ku néew doole koo kii munta wéy rekk di mel noonu bis dana ñëw mu jiima jóg di fajal boppam te nag xamal ne kenn nit wala ay nit ñu néew ñu jóg di fajal seen bopp seen mbir moo gën a jafee régler doo xam fuñ nekk doo xam anañu doo xam kañ lañu jóg lu nekk mën nañoo jóg def ko ci xeetu fitna yoo xam ne su boobaa fayantu moo koy andi kon waay waay boroom kàttan boroom alal boroom man-man boroom loxo bu gudd ci niñ koy waxe buum jàpp ne yooyu war naa mën a tax lu ko neex def loolee muy def su ca delluwut gannaaw wala ñu delloo ko ca gannaaw bisa ngi ñëw mu indi fitna joo xam ne loolee mu doon def moo ko indi ci kaw ay nit ñu néew doole ñu ñàkk pexe ñu ñàkk alal ñu ñàkk dara ci société ba ñu jóg def lañ man lu bare bare bari yàqu loo xam ne diisatu ko mën a defaraat te bu boobaa coow du jëriñe ci dara nag moo tax mbir bu jotee dañ koy wax ca fañ ko war a waxe su ko defee ña koy wax su boobaa magum waxoon naa ko la ñuy doon waaye duñ doon magum xamoon naa ko bis ni ko tey jii bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Shaaban ñu naan tey la ñuy séentu weer wi kon waxoon nan loola dañ ko bàyyi xel ci ne maandote dañ ko war a delloosi dañ ko war a taxawal waree su te jekki ba musiba am ñu naan lii kon ana imaam ya fuñ nekkoon ana boroom xam-xam ya fuñ nekkoon ndax mënuñu woon a yee nit ñi ne mbir mi fii la jëm kon nañ xam ne mbir ma foofa lañ jëm su tooñ amee na maandu tege ci kaw nit ña yar leen delloosi leen ci yoon ak fu mu mën a jóge ak ci jëmm jum mën a jóge mbokki julli gi kon loolu mooy maandute ci lislaam loo xam ne da koy teg ci kaw ñépp bu leen fàtte ne Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu taala anhu kero bis bam taxawee ñi ne ko yaay amirul muminin yaa wuutu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf dafa jóg taxaw ne yéen day ca xutba ba mu njëkk a def da ngeen teg ci seen kanam te doonuma ki gën ci yéen da ngeen rafet njort rek ci man su fekkee jub naa ànd leen ak man ca loola su fekkee dëng naa jubbanti ma na ma topp li maa ngi topp yàllaa ko yonentam su ma mooyee yàllaa ko yonentam bu ma topp kàddu yu gàtt kon loolu maandute lay wax booba maandute lay wax wone ne day tàmbalee ca ka gën kawe ca askan wa ba ci ki gën a suufe ci askan wi ci gisiinu doomu aadama yi moo tax sun borom tabaraka wa taala daf ko fedd li lool inna allaha an tu'addu al amanati ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl inna allaha niima niima yaidukum bih inna allaha kaana samian basira sunu borom tabaraka wa taala daf ne digal na leen na ngeen maandu su ngeen àttee ci diggante nit ñi na ngeen àtte ak maandute loolu waaraateeg sunu borom tabaraka wa taala gi nga moo féete kaw mboolem waaraate yi moo leen féete kaw mu daaneele ne inna allaha basira sunu borom tabaraka wa taala mu ngi leen di gis mu ngi leen di dégg mi ngi leen di gis fu ngeen dugg xam na ko mu ngi leen di dégg déggiin woo xam ne la ca seeni xol sax xam na ko kon jaadu na ci jullit bi mu maandu ci boppam maandu ci diggante waa këram ay doomam ay soxnaam maandu ci digganteem ak ña muy liggéeyal maandu ci digganteem ak société bi loolu su fekkee ne am na kay atte atte ci yoon dëgg ñépp yam ci kanamam su boobaa réew dana mel melokaan woo xam ne mooy ñu baax ña la ñuy mébét ñoo nga xam ne ñooy ña lañ doon mébét lépp duñ ca gis dara te mépp réew muy dox jëm kanam noonu rek lay mën a demee yi ñuy gis wax dëgg yàlla ci jamono yi ñuy dund mbir yu doy waar la yoo xam ne laaj na kenn ku nekk delluwaat ci sa bopp delluwaat ci saw askan delluwaat ci ñi lay déggal nit ñi waarante laayante biir te nit ñi delluwaat gannaaw kenn mënta nekk ci am réew gis xeeti yàq yu mel noonu di am ci kaw suuf ñi gis même élection yi jublu ay mbir yoo xam ne ñoo xam ne dañoo war a doon ay kilifa war a jiite aw askan ci ak i gox ci béréb ñoom ci seen bopp ñuy xasante di saagaante di dajaloo di xeex di xuloo ñi de yéen waa askanu senegal ñii ñoo leen war jiite ci kanam loolu dalutum xel nit ñi nañu delloosiwaat seen seen seen bopp nañ dellu ci seen boroom nañ xam ne lii àdduna dong la dañ ko fi bàyyi dem jërul yàq sa diine jërul yàq sam réew noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala weeru koor wi nu jublu te war ko séentu tey jii ci ngoon mu def ko weeru jàmm di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu delloo def ci sunu réew mi mu nekk réewum jàmm réewum jub allahuma inna nasaluka alhuda wa tuqaa والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك البر والتقى ومن العمل ما ترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة wa yudallu fiihi ahlu almaasiya wa yu'maru fiihi bilma'ruuf wa yunhaa fiihi an almunkar yaa samii'a addu'aa allahumma a'izz al-islaam wal-muslimiin wa adill ash-shirka wal-mushrikiin wansur kitaabaka wa sunnata nabiyyika wa ibaadaka al-muwahhidiin yaa arhama ar-raahimiin yaa rabbal aalamiin allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasuulika wa nabiyyika muhammadin sayyidil awwaliina wal aaxiriina wa ala aalihi wa ashaabihi ajma'iin